jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur euh, Média mbokk yi teewlu xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën fës ca Mauritanie euh, benn bateau moo mbëkk ab gaal gu fekk baax ca get Ndar euh, ñetti doomu dama ñàkk ci seen bakkan daan ci jokkoo ak sunu ndaw foofee ca Saint-Louis Ousseynou Diop cour d'appel bu Ndakaaru teggi na loxo ci bépp moomeelu Aïda Ndiong teg ci daan ba benn at la bu mu dul tëdd kaso moom mi nekkoon sénatrice libérale dafa mësoon di wax ni li nu koy sanitaire laale wu ci dara beneen ponk Panama Papers lanu ko duppee mu nekk nag loo xamante ni mi ngi lëmbee fi mu ne àdduna euh, di nag rawale koppar fare nag ci àdduna wërngal këpp sunu gantay may sa baabu la xam-xamam jëm ci wàlluk euh, kom may sa baabu maa ngi leen nuyu. waaw maa ngi leen di euh, ci kanam tuuti daañu faram fàccee lu ni mel ñaari détenu di ay prisonniers yu nekkoon fële ca kaso bu Guantanamo dalal nañu leen fii ci Sénégal ki ko xamle di jëriñ diñ Taba moom nag asile humanitaire la ko tuddee maanaam euh, dañu leen a dalal ñoom ñaar ñooñee ndax kat mësuñu leen a àtte tey tamit amul benn daan boo xamante ne euh, teg nañu ko ci seen euh, kaw mu nekk loo xamante ne daal ndimbal doomu aadama moo ko tax a jug sénégalais yi nag àdduna ñu itam ci woote bi nga xamante ne njiitu réew mi Macky sàll woote na ko maanaam xeex wàllu terrorisme ñu ci bari nag nee nañ xeex bi na fekk ñoom it ñu dugal ci seen loxo bu ñu jiital ragal gi loo xamante ne njort nañu ne euh, lu dalal lu dalul xel la nañu ko teel a euh, yëgle euh, beneen ponk lu tollu ci téeméer ak fukk ak juróom-benn ci ay xale yu jigéen sàkku nañu leen ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett la ñu gis ne ay soxna dañu leen daan fitnaal ci biir kër yi loolee nag di gëstu bi nga xamante ne bureau de droit de Pikine daal dina koy def ci diiru ko ñaari at Saliou Sow ak As Malick Diop daañ ñu wan lekk soxna yooyu nga xamante ni dund nañu lu méttee métti juróom-ñaari championnat d'Afrique bu judo 2016 euh, ñu ngi koy waajal ca Tunis ñeenti fan képp moo ci des équipe national bu Sénégal nag na ñoom euh, noppi nañu ngir bokk ci jongante yooyee lañu bëgg nag mooy jële fa ay médailles yu bare bari mbokk yi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi léegi. jàngeen jëf eh, ci ànd beeg télévision Futur Média ni ñu ko waxee woon eh, ci eh, ponk yi ci Mauritanie benn bateau moo daal di mbëkk ab gaal gu fekk baax ca get Ndar ñetti doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan kon ci accident boobee ñu jokkoo ci ak sunu ndaw ca Saint-Louis Ousseynou Diop Ousseynou Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Ousseynou Diop lan lañu mën a jàpp ci xibaar boobu. waaw ni nga ko waxee rek noonu la benn gaal boo xamante ni. Euh, dafa yaboon juróom ci ay mool waaye euh, donc mu ay jafe-jafe ci géej gi ba ñett mujj ci faatu ñaar sax donc ñu mujj leen repêché benn bateau moo leen mujj for euh, ñu ngi ak ngañ seen ngañ ñu ngi leen nuyu yaa ngi en direct sur la télé Futurs Médias tey jii de yow yaa ngi bokk ci famille bi yéen gi sax dëgg mbir mi lan moo xew. suñu gaaw gi dafa demoon Mauritanie foofu doon fa campagne mais bi mu demee foofu dina su dem samedi ci suba la ne jaj ci suuf. bi ñu suuxee nag dañu dégg si guddi gi sedd bi jàpp leen ba ñetti mujj si faatu ñaar ñi nag bi ñu yeewoo suba benn saxaar moo leen for bi mu leen faree yóbbu leen pooru Mauritanie bu mag euh, fa leen wàcce bi ñu wàccee ñoom ñoo jox information boobu nii dañu demoon si guddi gi xale bi moo doon jaar ci boor bi kenn gi jóg doon ko jàpp far ñaar bi gaal ba ñoom ñett ñett dañ mujj faatu ñaar yi dëj tey ñoom ñu mujj nag def doon def dëj bi tey comme am nañu résultat boobu ñoom ñoo ngi sax ci yoon wi di ñëw ak seegun mais ñu mujj def dëj bi comme ñoom am nañu ci résultat boobu pour nag ñu bëgg état bi dimbali ñu si nag xam ni maanaam sécurité yu mel ni bare bare toujours dee am ci géej gi noonu waaw foofu ñuy nappi dafa dafa biir géej gi sa sécurité bi sa war amu si dafa bare saxaar doo mën nelaw guddi doo mën nelaw bëccëg léegi moo tax affaire bi moo moo demee noonu ba léegi daal ñu ngi ci dëj bi léegi di dëj hmm. waaw kon ñu ngi ci dëj bi euh, tey kon xam nga li mu wax rek moo jëm ci wàllu jafe-jafe ñu am ñoom Mauritanie yi nga xam ne ñu nekk ci euh, fële ca doomu Sénégal yi nekk ci Mauritanie euh, ñuy am jafe-jafe xam nga ni accident bi fu mu amee nekk foo xam sore la te itam dafa sedd moo tax ñoom itam ginnaaw bu ñu gisee ni mbir mi daal nii la demee ñu fas yéene tey jii dëj bi boo ñëwee fii ci nga xam mooy goxu mbaaj nit ñi ñu ngi fi bare lool macha allah ñetti nit ñoo ci donc ñàkk seen bakkan ñaar nag ay dafa ñu mujj fort ba mujj leen andi. Euh, Ousseynou yaa ngi may dégg. maa voilà laata ñuy euh, tàggatoo xam nga bari na lool euh, ñoom gaal yu ndaw yi li ñuy faral di di di di di naqarlu ne bateau yi dañ leen di indi léeg-léeg jafe-jafe ci biir géej gi te loolu it ñuy faral di ko nemmeeku lu baree bari est-ce que kilifa yi foofu ñi ngi taxaw ci mbir mi ngir xool daal nu ñu mën a indee saafara ci façon accident yi. dëgg la ni nga waxee noonu la parce que sax euh, si suba bi ñuy yeewoo ba ba léegi ñu ngi ci mbir moomu li ñu gis daal mooy que ni am na kilifa yoo xamante ñu euh, euh, yi nga xamante ni dañ koy nemmeeku ay yoo xamante ni dañuy mbëkk ay yoo xamante ni fii la ñu bàyyi ñu fexe xool nan la ñuy tegee ay kuréel boo xamante ni jiyee bu nu mel bu fekkee ni am mën a jël information bi indi ci nga xamante ni ñooy kilifa Sénégal yi ngir ñu mën ci taxaw ndaxte ñoom li ñu gis mooy que mbir yi dafa sore ndaxte xam nga ni géej gi Mauritanie nekk jafe-jafe da ndaxte foofu dafa sedd guy ba nga xamante euh, nit ñi duñu mën a taxaw yàgg ngir nag daal di mën a euh, sauver lu ci bare bu fekkee da nga am 30 minutes wala 40 minutes ci géej gi rek bu fekkee amoo kenn koo xamante ni na la sedd bi da sonal ba nga xamante ni mujj faatu moo tax ñoom it mbir mi amee ñu ne ah comme que mbir moom am na boobu léegi démb ba léegi ñu ngi di seet gisuñu dara nuñ leen faral di jël moo tax tey jii dëj bi am ñoom daal li ñuy naqarlu mooy ñàkk taxaw bi nga xamante day am surtout nag bu fekkee ni euh, dañ leen bëgg wala boog ñu nekk ñoo xamante ni dañu suux ci suux bu gaaw jëf euh, Ousseynou Diop ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yaa ñu nekkal foofee euh, ca diwaanu euh, ndax géej ni nga ko waxee leer na ak bateau moo daal di mbëkk kon benn gaal bu fekk baax ca Guet Ndar ba ñetti mool ñàkk ca seen bakkan cour d'appel bu ndakaaru teggi na loxoom ci bépp moomeel bu Aïda Ndiong daan ba nag benn atu kaso bu mu dul tëdd la moom mi nekkoon senatrice libérale dafa mësoon di wax nag ne li ñu koy tuumaal aju ci mbirum produit phytosanitaire yooye laale wu ca dara Euh, delsiwaat waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi Sénégal dalal ñaari détenu muy ñi caabi féete woon gannaaw fële ca kaso bu Guantanamo euh, kàddu yi nag mi ngi tukkee ci jëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk euh, wàllu yoon di maître Sidiki Kaba nee na nag mbir mi daal asile asile humanitaire la bu ñu ko déggee nag dimbale ñooñee la ndax ñooñee dañu nekk ñoo xamante ni ba ñu leen téye ba tey mësuñu leen a àtte mësuñu leen a teg daan ñu teewlu ay kàddoom moom maître Sidiki Kaba ci micro Nafissatou Sila président de la république Macky Sall at gu ne particulièrement ci euh, cérémonie fête de l'indépendance am na ñi nga xam ne daf leen di gracier mesure humanitaire la maanaam ñi nga xam ne daf leen di jox yeneen chance pour ñu mën a euh, génn ci kaso ba euh, lu toll 586 mooy juróomi téeméer ak juróom-ñett ak juróom-benn personne nit ñoom ñoo bénéficier mesure bi Euh, am na ñi nga xam ne euh, bokkuñu ci moo ñi nga xam ne dañ leen topp ci ci viol euh, ci crime de sang maanaam ñu rey nit ak yeneen trafic alors ñooñu def leen écarté ñu daal di àddu nag ci leneen muy woote bi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall woo na ko doomi Sénégal yi soññu leen bu baax a baax ñu dugal seen loxo uh, ci xeex wàllug uh, terrorisme ñenn ci sénégalais yi nag uh, joxe si seen xalaat nee nañ xeex boobee faw ñëpp dugal ci seen loxo nañu bañ a jiital ragal gi te bu ñu gisee lépp loo xamante ne dañoo njoxtu ni lii kat mën naa jur musiba nan ko teel a yëkk lee ay satu pay lañ ci àndal ak Thierno na loxo mu di def ay jëye yu mag. te fu ñu jaax mu metti loolu jihadis yi ne loo xamante ne soxal nañu bu baax ba tax na ñëpp war a impliqué wu ci xeex bile waaye fii ci Sénégal askan wi nee nañu ragal tax na sénégalais yu bari bu ñu gisee lu leen jaaxal duñu ko boole. xam ragal rek. xam naa dañu ragal xam nga sénégalais moom foo ko fekk rek jàmm lay ut jàmm la bëgg. ragal ragal mu si tamit ragal mu si ak tamit li may wax tamit mooy ñàkk bañ a jël seen responsabilité aussi donc lépp pour ma tënk ko rek mooy ragal la. toll nañ foo xamante ne ragal waratul mun a am parce ku ci nekk euh, mun nga nekk sa biir kër sa li la war a dal mu fekk la fa mais aussi tamit na nga jiital fit gëm yàlla yow sa jëm bopp mun nga nekk sa sécurité bopp ba nga xamante ne di nga mun a jàppale ñu nekk ci kaw. tax na nag ñu war a jël seen ay responsabilité bu baax a baax boole moom ku def lu bon nga boole ko ayul donc koo ragal ne mi ngi def lu bon nga boole ko bu ñu seetee ne du bonul ñu bàyyi ko donc du ñu du ñu gaañ nit ci loolu li ma xalaat moo di gouvernement war na war na am jël njuytuwaaru euh, rajo télévision ci école yi ak ci bureau yi pour wax nit ñi loolu li ñu ci bëgg a def pour lu baax ci réew mi la moo tax ñu koy def. réseaux sociaux yi sax nekk jumtuwaay boo xamante ne buñ ko jëfandikoo ba jaax si dinañu xamale lu bëri bu ñu gisee naka sudul noonu. bu ma nekkee nit di dox ci réew mi gis koo xam ne dama ko suspecté am na droit interpeller la police wala ma gis nit ñi si réseau ma interpellé ci réseaux sociaux yi Facebook activité Twitter quoi su ma mënee appeler police. ma appelé police citoyen tamit dañoo war a dimbale Macky Sall ci combat bi. donc c'est l'affaire de tous donc j'appelle à tous les Sénégalais de prendre leurs responsabilités. ñu dellu ci maître Sidiki euh, Kaba ndax la mu doon wax sànq mooy nag euh, doomi Sénégal yooyu nga xamante ni dañu leen gracier maanaam may leen liberté euh, ci 4 avril bi ci loole la doon addu niñ ko waxee woon Sénégal nag dalal ñaari détenu di ñi nga xamante ni caabi da leen féete woon gannaaw ca kaso bu Guantanamo ki ko xamle di jëwriñ ñu dénk wàllu yoon nee na nag asile humanitaire la bu ñu ko déggee dimbale la ci doomu aadama ndax ñooñee kat mësuñu leen a mësuñu leen a tegtaan kàddoom ci micro Nafissatou Sylla loolu euh, ay réew yu bare euh, ci Europe en Afrique euh, nangu nañ ko parce que Guantanamo prison bi nga xam ne ñi fa nekkoon dañu nekkoon ci situation bi nga xam ne mën nañ wax ne sax day jalgati condition du droit international humanitaire te président Obama dafa ñaan président Macky Sall pour ñu mën a leen accepter fii président nangu ko ci mesure humanitaire te nañ fi nekk euh, mais il faut me préciser tamit que ñooñu condamné wu leen ndax euh, dañ leen topp dañuy yàgg foofu mën nañu wax ne ci prison boobu dañu doon jalgati les droits de la les droits de te léegi président bi daf ko war a fermer pour fermer ko am na conditions yi nga xam ne il faut ñu réunir ko ñu génnee ña fa nekk te looloo tax mesure bi président jël ko pour euh, ci biir coopération bi ñu am ak États-Unis waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi Panama Papers bu nu ko déggee nag lëmbee na lool euh, àdduna mu yaay koppar yoo xamante ne dañ koy rawale euh, ci meneen réew lu toll ci téeméer ak ñeent fukki euh, borom turu ci wàllu politique ak ñu siiw lool tudd nañu leen ci mu nekk nag ay jege ñaale Vladimir Poutine bu ñu ko déggee ak David Cameron Mohamed Sis Lionel Lionel Messi moom footballeur ba Michel Platini am na nag ay sénégalais yoo xamante ne nee nañu bokk nañu ci mbir moomee enquête bi nag ñi ko def ba bëral ko ay taskatu xabaar la seen lim toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk leeral yi ak Abdoulaye Deex ñu di la jaajëfal ni ñu ko waxee woon na sunu gan Maysa Babou la xam-xamam màcc ci wàllug may sa baabu Panama Papers lëmbe lool àdduna nuñ mën a jàngatee mbir mi ndax euh, doy na waar. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu sa téléspectateurs yi en fait euh, affaire bi moom problème mu ku ku la maanaam xaalis xam nga dafa am soo ko amee. loolu la nguur di teg ñu ne la impôt maanaam ma misaal ne ki nga xam ne dafay liggéey salaire am dañ ciy dagg wante ki liggéeyul sax su weer wa dee at mi danaa nangam de am naa ko nguur gi na kon fay ci nangam yow soo ko def nga loolu bu pare nga wëlbatiku def sa épargne maanaam sa xaalis des yooya nga koy dajale ndax nit it soxla na après xaalis alal loola jal su jaloo ba ne alal nguur gi day ñëwaat bokkaat kook yow. ne la léegi comme que yow lee alal la dama koy xaaj kon mu mel ni nguur yëpp ci àddina bi dañoo jël seen bët teg ko ci alalu nit ñi nit ki nag xoola footballkat boo xam ne da koy fay lu mat deux cent millions par weer mënu ko lekk dëgg la wante nag soo ko imposé benn yoon mais bàyyi kook alalam mais dañuy bëgg su fa defee at ñu def comme ni diine di def genre zakat ne la comme nga def ni at day am impôt sur la fortune donc pour wax ne ñoom ñooy tiital nit ñi ba nit ñi finalement aussi seen xaalis ñemetuñ ko bàyyi ci ay conte nit ñi euh, muy normal ñu koy gis ah. nit nag xam nga est-ce que loolu war na tax ñu rawale ko ci meneen réew tam waaw loolu moom xam nga du patriotisme mais euh, dafa xol moo du seen xol yi moo dul nangu yow nga am milliard nguur na dama koy séddoo yow parce que sooy xol ci réew yi kenn ku nekk ak fa nga ko teg nga sooy jël Europe. da nga naan France moo ci gën a cher moo ci gën a diis am na acteur français boo xam ne nii day def cinéma xam naa ne xam nga ko moom dafa mujj taw dem Union soviétique te réew yi comme que tolloowuñu euh, nit ñi defee impôt ah ñu ci bari aussi nit ku nekk sa intérêt ngay xool euh, dañuy choisir ay pays yoo xam ne dañ leen di tudd sax ñenn ñi paradis fiscal xanaa kay mm, benn bi mooy xam ne fii paradis la nga dem fa. ba ci des mooy nga jël alal ji wane woo ko daw génn ak moom loolu moom mooy nekk nag évasion ba pare doo ko mas sa wax ne am nga ko foofu nag problème lay indi. est-ce que loolu tax nag it nit ñi mën a njortu leneen ndax euh, mën nañu njortu tamit ne alal ju lewul. waaw mën na am am bon ñaar yëpp mën na ci am am na koo xam ne ni alal mu lewul moom mu daw ak moom am na ko nag koo xam ne alal dafa lew wax dëgg yàlla ba pare moom impôt yaa diis ñu ne ñu ne ko ah kon nañ la conseiller xam nga ku mel ni footballkat bu day ni Messi kooku soxlu jël alu jàmbur suñ ko ci dugalee dugal ci ñeneen ñu mel ni moom da ngay xam ne du question jël alal ju lewut wala sàcc déedéet mais impôt ba nga ne réew ma nga ne moo la sonal ci impôt voilà nga daal di daw loolu rek loolu rek defe naa ne moom mooy problème bi kon xëy xëy na état yi mën nañ xool nu ñu defit ñoom it ba ba apaiser situation bi pour que lii li lii mën a dakk ndax nag metti na lool ci koom yi tudd nga léegi évasion fiscale lan moo ko utalee ak euh, fraude fiscale. waaw xëy na euh, sorewuñu de parce que bi nga xam ne ki kii fraude la ma mën nga ko def sax sa biir réew fii mm-hmm. maanaam war a fay fayoo wala nga def fausse déclaration euh, maanaam localement fii mais soo dégg ñu naan évasion kooku moom dafa mel dafay daw génn réew mi te su dawee génn réew mi day daw l'impôt bi nekk fii ci ci réew mi mais nag xaalis balay génn. transfert de fonds yooyu dañ ko waroon a leeral ñu ne la frontière baa ngi nii marchandise buy dugg day fay wala buy génn day fay xaalis suy dugg day fay suy génn day fay xëy na foofu nag ñu ñu ñu jën ko wax évasion moom daanaka kuy rëcc ak di daw la mais fraude moom mën nga ne ci bureau bi def ko euh, soo xasee ba génn sax daanaka dootul doon fraude fiscale ndax évadé nga ba pare. Mhm. donc un peu concept yi daanaka sooy xool sorewuñu. Mhm. pour leeral cas bi ñu waaw yii nag moom moom mm-hmm. évasion la. Mm-hmm. Euh, kon nga xam ne da nga frotté da ba pare ndax da ngaa lànk fay fi ba pare. Mm-hmm. donc rëcc daanaka dafay boole ñaar yi. léegi nag su ñu topp ci invasion fiscale bi la loolu nag xam nga mën na doon crime bu xaw a diis. Euh, rawale rawale koppar googee ban njeexital la mën a am ci suñu koom-koomu réew. waaw li comme jeexital yi bu ci njëkk mooy épargne fii ci réew mi épargne bi day nasax te xam nga épargne sa nasaxee comme euh, bi ku koy financé dafay dafay nasax euh, ndax ñooñu seen alal yi kat su desoon fii ñu def ci usine biscuit wala ñu def ci boulangerie ñu bari danañ ci mën a def seen teranga ba ca des it mooy nga lempo bi nag su diisee li ñuy wax doing business maanaam réew mi dañ koy ragal réew mi dañ ko ragal ba investisseurs yi woon indi dañ naan ah feede soo fa demee impôt ba dafa seer lañ lay teg doo ko man mm-hmm. kon pour wax la loolu tamit jeexital la ci ci biir koom bi kon am nañ am nañ am nañ am nañ ay intérêt ñun ñu ñu ñu du ma ne nag paradis fiscal ndax ndax ndax àjjana tamit dafa yomb bu trop daal mais mm-hmm. ñu xoolaat impôts yi niñ koy tërale bi nga xam ne da ngay xàmmee ki nga xam ne dafa bëgg ñëw nga war ko xëcc mu ñëw nga noo koy defee ba mu ba mu nooy. maanaam uh, uh, uh, maanaam dañu dañu war a woyofal. loolu waaw xaw ma wootal ko wootal ko. waa mhm. ki nga wootal. mën nga ko sax may ne ko mën naa la nga may nga ñëw ba toog ba def fi juróomi at doo fay. sa que su xasee ba def ba juróomi fat ba samp ay tànkam dootu ko daj yóbbooti nga ne ko ci boobu ngay commencé fay yooyu yëpp dafay bokk xam fiscalité impôt ci boppam. Mhm. moom moo moo dis moom moo ba pare compliqué daanaka ñun duñ ci liggéey trop économie la ñuy la ñuy gën a kii mais ñoom lu yëngal rek da ngay gis ne ñun dafay dafay dafay jeexi jaaxa ci ci ci ci koom bi de façon général kon jeexital bi mën na mën na doon vraiment euh, koppar yu ñàkk réew mu ñu réew mu diis ñu ragal la et cetera ba nga xam ne day freiner investissement étranger. ndax euh, delloo si koppar gi loolu lu mën a nekk la. waaw du yomb mhm. ndax euh, xam nga lii baag bu lëj la ñi ko mën a topp ba gis ko bariwul yombul non yombul wax dëgg yàlla parce que ñi koy def ay expert lañ ñoo ñooñu dañoo yàgg ci xaalis dañoo yàgg ci ay banque dañoo yàgg ci impo dañoo xam fu niñ mën a def ba nga xam ne suñ jàddee ñetti koñ dootoo leen gis ndax fañ koy fañ koy jaarale te xam naa ne Sénégal am na ci ay preuve yoo xam ne nii am na am na ci ay passé yoo xam ne ni euh, daaw rek ñu ngi fi wax yu mel noonu te may wax ne du foofu rek attends soo demee Suisse am na réew yoo xam ne nii amuñ pétrole amuñ gaz amuñ dara mais nii lañ def ba xaalis bi ñëw ci seen biir réew ñu ne ko ko fi dugal duñ wax sa tur anonymat garanti loolu nag dama ragal ne au niveau européen ñoom ñu war rek. waxtu wi euh, xoj ñu ñu gis yeneen réew yi euh, lu jëm ci mbir moomee ñoom ubbi nañu ci l'enquête Sénégal defagu ko. Euh, c'est normal hein damaa ragal ne réew moom soo ko yoree su fa soo déggee lu ñuy wax ba tudd sa waa réew ba tudd sa doom réew ragal naa doon na baax quand ñu ubbi. waxuma ñu jàpp kenn de mais ñu xool rek ña nga xam ne même suñ ko defoon ñu ne leen lekkoon indi leen te fay ci li ngeen war a fay euh, au moins mu ñëwaat ndax euh, xëy na du xaalis bu ñu sàcc du dara mais dañoo dañoo fayutoon impôt euh, ñu daal di indi ñiy def bâtiment ñiy def ñëpp xam nga ñu ngi ci biir. gis naa ci ay tur yu bari mais l'enquête bi moom lu normal la ba xool lan moo xew ba pare la nga cay baaleeg la nga cay def nag après. mënees na cee prévoir ay daan. waaw en principe la loi day daan xam nga soo xasee ba ne moom impôt moom daan daan bi taxaw na. invasion moom <laughs> impôt moom xanaa ñu jéggal la ne daan moom day taxaw. ñi di ko jaajëfal bu baax Meissa Babou xam-xamam màcc jëm ci wàllu ko comme jaajëfal nañu la xibaar yi ñu wëyal ko wax nag ci téeméer ak fukk ak juróom-benn ay xale yu jigéen yoo xamante ni sàkku nañu leen ñetti téeméer ak juróom-yeen fukk ak ñetti soxna ñoom mettital nañu leen euh, ci seen euh, sëy loolu nag di gëstu bi nga xamante ni euh, boutique de droit bu Pikine def na ko ci diiru ka ñetti at mu tekki nag ne téeméer ñaari téeméeri soxna ñoom def nañu leen lu méttee métti euh, dinañ ci dellusiwaat ak euh, sunu ndaw Salif Sow ak As Malick euh, ñoom ñoo ñu teewal foofu daal dinañu nag laaj soxna yooyu nga xamante ni jot nañoo dund lu métti métti dinañ di ngeen ko gis ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wax nag ci soxna yi nga xamante ni ñoom dañuy yëngu ci wàllug njaay fii ci Fiara bi ñoom nag fi mu ne leen képp la ñu bëgg muy nag seen marchandise ñu fexe ba jaay ko ba mu jeex tàkk ci Fiara bi ndax gis nañ ni nekk na loo xamante ni daal opportunité la maanaam bunt la euh, ci ñoom ndax it loolu dina mën a tax jafe-jafe yu bari yi nga xamante ni ñi ngi koy jànkonteel ñu mën caa taxaw ci CICES nag soxna yu ñu fa fekk ñoom it produit yi nga xamante ni ñi ngi koy indi euh, visiteurs yi rafetlu nañu ko bu baax a baax leeral yeeg Mame Biram Diouf doon na xew-xew gu ñu bëri di xaar lool ngir teew fii ci fiara bi amal ay visite gis lu ñu bëgg lu ci mel ni waa ji moom nee na mun ko woon raté. man dama daan organiser salon l' agriculture France pendant sept huit neuf ans donc c' la première fois ma ñëw Sénégal di xool euh, FIARA euh, donc au Sénégal dama ñëw pour euh, xool. lu bees dina xam naa dinaa fi gis yu bees dinaa fi gis loo xam dina ma accroché et puis ay contact cetera. fii ñu mën fi fekk ay produits yu bëri te wute. ñu ngi jaay limon boo xamante ne limon bu piir la raxul deful dara sell na te baax na ci sante ñu ngi jaay diwtiir ñu fiy jaay netatu bu sell ñu jaay sipax ñu jaay gejj yéet tuluku na ci stand yi ay soxna teew fii doon ay productrice ñoom nag produit yi ñu ngi fiy exposé bari na seen liggéey takku coono nag ñu koy am ci transformation produit yi ndax lu bari ci liggéey bi loxo la ñu koy defee ba tax ñuy laaj ñu gën leen jàppale. ci dëkk yi nga xam ne dañu gën a euh, reculer suñu soxla tey yëpp mooy am ay plaques solaires yoo xam ne dina dinañu mën a jàppale ba suñu matériels yi ñu man di euh, yombal suñu liggéey daal ci wàllu liggéey bi. Euh, mu lay appart d'arachide tamit bu fekkee am nañu système solaire bi dina ko dina gën a yombal daal suñu liggéey dinañu yokk tamit noflaay. bëgg nañu am ay presse unité de presse. comme par exemple limon bi bu ñu génnee kii bi xoox yi ñu am lu ñu koy pressé ndax mu gën a gaaw ndax si no bu waxtoom jotee xam nga dañ koy benn limon nga di ko dagg di ko nal ci loxo sa loxo day yàqu foofu. bu bëggee def ay fañ aris il faut nga am ay machine buy wol say dugub say gerte say ñebbe ak boo defee boo bëggee def ay araw il faut nga am machine bu am séchoir loolu baax na ci. kon yéen tey ngeen def pour defar ko. xanaa suñu loxo rek. moo ñu defar. Euh, fi mu toll nii nag euh, koppar gi dugagul gu baax comme ni ko soxna yi di xamle clients yi nag ñu leen di kon xaar ba léegi. ñu ngi ciy génn tuuti tuuti rek. njàng mi ci daara yi kawe yi taxaw nañu ci gën koo ñoŋal rawatina ak ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru lii nag ñu duppee campus excellence def nañu teg xeer bu njëkk ba lu toll ci fukk ak juróom-ñetti euh, junni lal la mbaa lu ko ëpp ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru teg it am na ay campus euh, socio moderne yoo xamante ne fas nañu ko yéene euh, tabax mu nar ànd ak nag ak xarala yu bees ci wàllu internet ak li nga xamante ne dina gën a dooleel njàng ma foofee ñaari at euh, la ñu ko tëral koppar yi toll na ci juróom fukk ak ñaari milliards mu nekk euh, bor boo xamante ne kon diiru fukki at ak juróom euh, lañu koy fay mu am nag lëkkaloo jaar ci lëkkaloo boo xamante ni public bi la ak privé Pafara Gningue teg xeer bu njëkk bi nag loolu mooy màndargal jéego bu njëkk bi nga xam ne teg nañ ko ngir fexe ba lii di ko du am ay junni junni ci ay lal ay dëkkuwaay yu mucc ayib tukkee nag ci lëkkaloo boo xam ne dox na ci public bi ak privé bi. du rek ci lal yi muy indi nombre de lal yi muy indi mais même ci naka cadre bi yëpp ni nga xam ne cité bi nan la nar a nekkee étudiants yi seen kaaraange ci arange ci mais aussi euh, dinañ leen def comme euh, ci ay bërëb yu ñuy dund comme ni nii seen i naataangoo yi nekk ci réew yi gën a développé ci àdduna bi noonu la ñuy dungee. lu toll cinquante deux milliards nga investir ko fenn euh, war koo gérer ci fukki at juróom bu paree nga jox ko état mu continuer moom ko. loolu tamit euh, lu am solo la te tamit bu ñu ëgsee foofu c'est parce que directeur général COUD moom moo amoon xalaat bi. Ah, projet boobu nag lu tolloog juróom fukk ak ñaar ci ay milliards lañ ci def waaye ñu fa yéene koo delloo ci fukki at ak juróom. c'est projet important. doon na projet gu am solo ñu xayma ko ci juróom fukk milliards ak ñaar euh, projet gi nag euh, fii ak ñaari at dinañu ko jëmmal te sax dina am ay pavillon intelligent. des pavillons intelligents. bile projet dina tax nag jafe-jafe yi nga xam ne étudiants yi ñu ngi ko dem am ci wàllu dëkkuwaay mu daal di xaw a dëñ li nu mel nag mot na ñeenti yoon lal yi nga xam ne amoon nañ ci koddu. l'augmentation de la capacité. def lépp ngir yokk limu lal yi ci campus sociaux yi ci UCAD boo xoolee ni ko directeur général bu COUD xamle sax service bi mën naa dalal ba ci juróomi junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak benn ci ay lal fii ci Dakar. Dakar. campus social d'excellence nag boobule projet dina dem ba ci yeneen université yu nekk ci Sénégal waaye balaa ka nguuru Sénégal di ko moomal boppam faaw mu dem ci fukki at ak juróom. Pafara ñi nga cant ak ngërëm ñeel na la ñu dem ba Laat Mbengue dellu wax nag ci feetuk indépendance bu Sénégal 4 avril ba euh, foofe nag euh, kilifa diine ya kilifa aada ya ba ci kilifa euh, gox ya daal na ni lëkkaloo nag ngir màggal indépendance bu Sénégal ca place publique ba loole ci teewaayu sous préfet bu arrondissement bu Koumbal maire bu Laat mbenge Mbengue docteur Macoumba Diouf na ci ñu teewlu ko. contexte bi nag defe naa ku nekk xam nga ko ci contexte adduna bi yëpp la ñëw ba yegg si fii ci Afrique ak suñu gox-goxaan yëpp ñuy ñaan yàlla yàlla musal ñu ci contexte boobu mooy laan mooy contexte ku nekk gis nga affaire terrorisme ni mu siiwee ci àdduna bi ak li muy yàq ci àdduna bi ñi muy tere nelaw ñi muy lor ñi muy yàqal kon ñu am président de la république boo nga xam ne. gis-gisam gis-gis bu yaatu la moom président de la république Macky Sall mooy bëgg a taxaw ci mbañ na ko ba mooy chef des forces armées mu wax ne nag dafa bëgg aar sénégalais yi loolu bokk ci soxlaam bu njëkk. ba pour wane ko 4 avril bii mu jël thème boobu jëmale ko ci kaaraange askan wi jëmale ko ci euh, euh, euh, service yi nga xam ne force yi nga xam ne ñoo taxaw pour asali kaaraange googu pour ñu njukkal leen pour ñu dooleel leen pour ñu jaajëfal leen. loolu moo tax ñu yëkkati temu ren bi ma bëggoon ci profité wax ne sécurité moo jiite lu nekk euh, depuis suñu gox yeeg suñu gox goxaan ni soxla nañ fi sécurité kon ñu ngi rafet li fi autorité locale yi di def ànd ko ak gendarmerie ba tey xëy na lépp matagul waaye jéego yu bëri am na ci wàllu sécurité dem na ko ci affaire u jur gi gis ngeen taxawaay bi ci gendarmerie ak sous euh, ci ndigalu sous taxaw ba gis ngeen léegi ñu ci bëri mën nañoo nelaw ba yandoor ni ko bàkk bi wane tàggat yaram ci la ñu yegg si ak fanweer ak juróom-ñaareelu championnat d'Afrique ci wàllu judo euh, ca Tunis la ñu koy amalee la ca des nag matatul ñeenti fan équipe nationale euh, bu Sénégal moom tàggatu na ba noppi ñu am yaakaar nag ne bu ñu yeggee euh, ca jongante yooye daañu ca jëlee ndam Cheikh Sadibou Diarra Ibou Kane ay prise yu ñuy def di ko defaat ay coach yu joxe seeni instruction équipe nationale bu judo bu Sénégal nekk ci waajtaay yu mujj laata muy dem ci championnat d'Afrique yi ñu jàpp ko juróom-ñetti fan jàpp fukki fan ci weeru avril ci Tunisie équipe bi nag fukk ak juróomi combattant ñoom ñoo ci nekk ñu ràññee ci juróom-ñaari soxna sélection bi nag gëm na ne dina am ay médailles am. daful liggéey rapidité tactique technique tactique rek la ñu dese luñ fi amuloon boobu léegi mënuñu ko am moo tax euh, boo gisee liggéey day gàtt actuellement day gàtt te am intensité bu ndaw rek après ñu bàyyi boo xoolee ci matin bu njëkk ba dana am ñetti séance mais tey ñaari séance la ñu am dañu daw. jeexatal bi moom moom la ñuy def moo tey travail de vitesse presque la ñuy def euh, liggéey nañ bu baax te yaakaar nañ ne euh, dinañ am ay médailles. incha allah ragaluñu dara suñ man li may wax rek suñu suñu bopp la ñuy ragal su su xalee ñamee rek jour boobu rek joxe li ñu war ñu am li ñu li ñu euh, résister li ñu jàng joxe li ñu am yëpp dinañ am dañu am dara. ci biir groupe bi ambiance bu baax lañu fi nemmeeku doyen bi nekk capitaine bi di Hortense Diédiou ci bésu tey ji moom repos lañ ko yóbbu woon wante am na ñaari objectif yoo xam ne fixé na ko boppam. entraînement yi ak suñu entraîneur yi ak coach yi ak fédération bi euh, lépp jàll na. yàlla na jàmm bi continuer nu ñu nekkee nii waaw. Clean Jaboon moo tax ba judo ñëw Casamance te sas na ma pour ma amaat beneen médaille ndax ma double titre yu ma am waaw donc loolu moo nekk sama bopp tey. et aussi andi dëkk bi te ren mooy avril bi mooy dernière phase su qualification bi pour waa Afrique donc lu lu yite la pour man il faut que ma dem andi ndam loolu. équipe nationale bu judo bu Sénégal talaata si ngoon dina fi bàyyeekoo jubali ca Tunis am yaakaar bu baax a baax nag ne dina gañe foofu médaille yu bëri. médaille yu bari ni nga ko waxee Ibrahima kan am na nañu yaakaar ne Sénégal dana ko fa jële waaye ci kaw nag mu wane boppam bu baax a baax ci jongante yooyee euh, Idriss Diop moom mooy secrétaire général bu fédération sénégalaise bu judo ak yeneen discipline yu mu làmbool yëkkati na ci ay kàddu jëm nag ci yaakaar googu nga xamante ne am na ko ci suñum réew ñu teewlu ko ak Cheikh bu Diarra déjà déjà am na benn équipe euh, fédérale bu dem démb maanaam président bi ak vice président bi dem nañu démb déjà pour baliser terrain bi déjà et dañuy dem aussi pour ñaari fi ñaari euh, yëf maanaam benn bi mooy participation équipe nationale beneen bi maanaam dañu war a renouveler bureau Union africaine de judo te Sénégal at bi am na ay candidats ci bureau Union africaine de judo bi. amoon nañu médaille de bronze bëgg nañu année bi am médaille d'argent ak médaille d'or ne serait-ce que défendre suñu titre waaye ñu ngi dem daal vraiment pour andi ay médailles. sa Diop secrétaire général bu fédération sénégalaise bu euh, judo yegsi nañu ci njeexital li laata ñuy tàggatoo ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay yi ak borom jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf diggante obélisque Cap Manuel Panama ba Guantanamo moo tey yéenekaay yi tànn sa bu la neex la tànnal naa leen l'observateur président Macky ay bi xëy discours à la nation bi woon bërki démb défilé 4 avril bi woon démb ko ci ndaw ñi l'observateur nañu daa mel di ku nekk ci réew mi ngay bàyyi xel ak di foogu ngir ñu mën a ci wàllu terrorisme populaire nañu ci juróom fukk ak juróom benneelu feetuk indépendance gi ñu doon màggal démb ci 4 avril bi l'armée bu Sénégal wane na ca boppam bu baax a baax jaare na ci génne li mu toogaale ne ay ngànnaay ak i jumtuwaay lépp rek ngir wan say say terroriste yi ne leen senegal gone mën na ko dëkk waaye ma nga koy daan li gën a yéem nit ñi ci défilé ba nag journal bi nañu moo di ba ñu gisee waa force spéciale ñuy génni défilé ak seen ngànnaay di ñoo xam ne lu ëpp ci li leen di génne wàllu terrorisme la ñu takku geetaru ba dëgër mel ne soldat yi américain ci film yi le témoin nañu l'armée bi wane na boppam démb te Macky président la république Afrique nee na du ca yam dañ leen gën a dooleel yokk leen ay jumtuwaay dolli leen ay moyen bu baax a baax Sud Quotidien jël soldats yi Sénégal yi doon wanu démb ci défilé 4 avril bi foto ko tegal ñu ba noppi tegal ñu ci ne l'armée baa ngi wane dooleem direct ay fo nañu waaye nag feetuk indépendance bi woon démb Macky Sall mbirum man kese kottu képp kenn bokk loolee la ko def ne li liñ doon faral di gis moo di bépp réew buy feete sa indépendance dangay xool réew yi la wër nga déggoo ak ñoom ñuy say dëkkandoo nga invité leen ci waaye démbu Sénégal gisuñu benn dëkkandoom ci défilé bi du kenn ku ñëw teewee ko nañu démb bi Sénégal di màggal juróom fukk ak juróom benn ate indépendance am nit ñi saafonte nañu ba noppi soldaar si défilé fa lu rëy génne fay ngànnaay yoo xam ne dal na xelu ku nekk lu toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom benn doomi aadama yu newoon ci kaso bi yéen kaay bi nañu président de la république grâce yéena leen ci bisub indépendance bi bàyyi leen ñu génn kaso ñoom it moom seen bopp grand place nañu ci ñoo ñi président Macky Sall grâce yee ci la bokk mu di oustaz Taïb Socé ñu fi doon toppee wàllu njublang ak i njuuj ci wàllu or di association malfaiteur ak escroquerie portant sur l'or ba yoon daanoon ko juróomi ati kaso yoo xam ne ñett yi lay tëdd mujj nañu ko génnee ci kaso bi mu dellu ci ay mbokkam Tayib Socé ak i kàddoom ci xët mu njëkk Grand Place muy xamle ne liberté lu ko waay jënd rek jar na ko ba muy nekk ca kaso ba mu ne ñu jàngale alxuraan ak di waaraate loolee la fa doon def ci biir l'observateur borom ala kuliyal di oustaz Tayib Socé ne ñu nit bu amul liberté du mën a wér li wér te wóor daal laatir bi nañu moo di Macky Sall génnee na Tayib Socé ci kaso bi ba noppi nangoo dalal ci kaso yu réew ñaari nit ñu tëjoon ca kaso Guantanamo kenn ki Salem Abdoul Salem Géré bi la tudd des Omar Khalif Mohamed Aboubacar Mahmoud Omar di ay doomi Libye yu ñu tëjoon ca kaso bu Guantanamo def nañu fa fukkeet ak ñeent Maître Sidiki Kaba mi ministre de la justice yéenekaay bi nañu moo doon visité kaso bu Cap ci la xamle ne Sénégal dina dalal ñaari prisonniers yu newoon ca Guantanamo ndax ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti ca Guantanamo te ñu war leen a tuxal Barack Obama dana Sénégal na ko ci jëlal ñaar Walfadjri ne ko nangu ngeen a ñu ko tegal ci xëtamu njëkk Sénégal ak ni mu nangoo ñooñee ñëw ci réew mi wal fa jër nañu kilifa réew mi nañu wàcc xam ne luñ ci góobee rek dinañu ko gar ki ñuy gar ay mbiram ba léegi te jeexagul moo di Karim Wade l'Observateur nañu tudd dinañu ko ci leneen coow te gile yoon du moom rek moom Karim Wade la Pierre Goudiaby Atepa Mamadou Pouye mbirum évasion fiscale lañu leen di toppee ca Panama libération nañu ma naari naar yaa ngi xëy ko ci xëtamu njëkk la Sénégal nañu Mamadou Pouye ba ca quotidien ñu mën nga ci biir muy moom Karim Wade di Pape Mamadou Pouy politique léegi ak Walf Fadjri mi ñu xëy xamal ne président Macky Sall waxtaan wi mu doon woote mu di dialogue ku jëg politique gi nee nañu demuñu ñoo lànk bay wut ku leen lànkale kenn ci di Idrissa Seck nii ci xët mu njëkk la tribune damaa yaakaar ne président Macky dafa nekk ci meneen réew mu bokkut ak mi sénégalais yi nekk ñu fekkat ko ci xët mu njëkk laas moom daamal Kajoor léegi tey mu taxaw sunu làmba ñu ko wax nee nañu Assis Ndiaye borom Assis production moo koy dox ba mu ngi gisee ak ñaari mbër yi mbër meneen mu ñu xëy gis ci yéenekaay yi moo di le roi des arènes bombardier bombardier borom guddi guddi mbuur bu ñu ko jàppalewul dina yàgg ci yoonu mbuur wi lu tax populaire nañu ab oto moo lakk ci oto à péage bi ba jeex tàkk l'observateur nañu noonee la demee oto bi ab Lincoln navigateur la woon ñeent fukki million la doon jar Mamadou Mouhamed Ndiaye jaajëfal nañ la yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti cant ak ngërëm ñeel na leen rédaction bi dina fi teewaat 19h30 ak 20h ci yeneen jotaay xibaar kenn daluk jàmm ak programme télévision Futurs Médias